lii parce que kaso moom maanaam moom ma ëpp sax sécurité maanaam bitti gi kon nag bu fekkente ne ñoom liñ jël arme muy seen armu muy kaso def ko armu di ko xeexee man Assane Mbacké man moom laa gën a ñeme parce que ku jaar ci daara jaar fu metti kaso du la jaaxal kon nag maa ngi ci woo bépp sénégalais di ci woo bépp patriote dinañ jóg taxaw xeex jaamaarlu ak Macky Sall ndax nguur gi fi nekk dañoo sonal képp kuy Sénégal ak ku mën a doon bu la laalul laal na sa mbokk wala sa xarit wala sa jegeñaar wala sa wayjur te lii fi am ni mosu fee am kon nag nañ jóg taxaw jàmmaarlu ak Macky Sall ne ko arrêtel te nag dafa war a arrêté parce que fu laal mu nooy fu mu laal mu nooy bu bu bu yàggee dictateur la fi installé te loolu mi ngi ko fi commencé di installé kon nag loolu ñun ñoo ko war a mën a bañ kon nag maa ngi leen ci woo yéen Sénégal yëpp ñaari date yoo xamante ne woote naa ko pour ñu pour pour rassemblement benn bi xale Mbàkke yi ñuy jàpp ak xale Tuubaa yi ñu jàpp la 20 octobre maa ngi woo képp kuy mbokk wala ngay ndey wala ngay bàyyee wala ngay wéju wala ngay loo mën a doon nekk xarit wala nga xamee maa ngi lay woo Mbàkke ñu def marche pacifique boo xamante ne di leen wane ne doomi Tuubaa lañ jàpp doomi Mbàkke lañ jàpp ndax ñee nekk ci kaso ba ñun ñoo leen mën a dimbale ñoo mën a xeexal waaye bu ñu leen bàyyee noonu rek faalewuñu leen woowuñu leen wala lijjantiwuñu leen su boobaa tamit mën naa métti ci ñoom métti seen wajur te seen wajur yi sonn nañ de ndax ajuma li ñuy daj di dem di visiter ji dëgg dagg dagg paas fii ba njaareem te ni dëkk bi méttee ñuy daj lu ne huit mois ñu am ko fa kenn waxul loolu nag mi ngi bëgg ëpp ay doomi Tuubaa lañ nag de ay doomi kon nag doomi Tuubaa yooyu nañ leen wàllu nañ leen taxaw nañ leen taxaw seen xeex pour ñu am seen liberté kon loolu maa ngi ci woo ñëpp bi ci des mooy euh, le 3 novembre tamit maa ngi woo sénégalais yëpp place de obélisque pour ñu def grand rassemblement bu mag wan Macky Sall ne ko Ousmane Sonko mi nga jàpp bàyyi ko détenu politique yi nga jàpp bàyyi leen te détenu yi buñ ci tuddee ku ci mel ne Bassirou Diomaye Faye tudd ku ci mel ne Fadilou Keïta tudd ku ci mel ne Abdou Sylla Abdou Sylla ñaata at ñaata weer at ak weer ak yu topp waaw un an cinq mois Abdou Sela ñu tëj ko ci kaso bi te loo xamante ne ay feneen tappale dong la boobu ba mu nekk ci kaso bi ñu koy seetaan loolu nag ëpp na kon libération Abdou Sela moom lu ñu ñor la te dina taxaw xeex Abdou Sela ak Fadilou Keita ak Bassirou Diomaye Faye Toussaint Manga Mame Pathé nga xamante ne moom euh, engagement la am ci Ousmane Sonko bëgg ko te yàlla tax ñu jàpp ko tëj ko tëj bi tëj bi yëmuñu ci de waaye dañoo dem toj palaasam di ko mettital di ko xor ñooña parce que tëj la kaso moom di dem di yàq sa alal loolu maanaam ëpp na kon ku ci mel ne maam Pateek Toussaint Manga su ma leen limee rek maanaam ak euh, Diop Taïf ak Omar a Diop surtout ma Omar Bamba Diop Omar Bamba nga xamante ne moom doomu daara la kon Omar Bamba Diop tamit war nañ ko mën bay parce que kaso ba lam fa moom tamit ci biir otoom lañ ko fekk daf koy jàpp kon ku ci mel ne Omar Bamba Diop moom tamit nañ ko bàyyi nu mu gën a gaawee kon daal ñooñu ñëpp ma tudd ñaanu ma yàlla nag balaa le 3 ñu nekk fa mais daal le 3 maa ngi ñëwoo ñëpp képp kuy sénégalais képp kuy patriote képp ku bëgg réew mi nga ñëw place Obélisque ñu mars mars boo xamante ne dinañ wan Macky Sall ne ko arrêté li ngay def dara du ci dëgg dara du ci yoon. te it Ousmane Sonko nga ànd ak moom am dara xëy suba daat koy war moom yomb na lool ndax am na ñoo xamante ne ginnaaw yàlla bu ñu nekkee maire wala ñu nekk ay député. wala ñu nekk leneen ginnaaw yàlla Ousmane Sonko moom moo tax pourtant le 13 juin deux mille 2022 barke Serigne Touba laa woo laa laa woo Ousmane Sonko ñuy waxtaan man ak moom 2022 de barke Serigne Bamba ma ne ko xale teel ci moom ma ne ma ah parce que boobu dafa am ku ma wax ne ma Khalifa Sall démb moom ak Macky reerandoo ma ne ko teyal ci moom ma ne ma ah sëñ bi looy wax ni ma ne ko moom ak Macky Sall maam réeroowuñ ma ne ma déet waay ma ne ko waaw ma ne ko te lii ma lay wax di ci am firnde ma ne ko dina la bàyyi te boobu yàgg na 2022 ma ne ko dina la bàyyi tey dina nekk candidat bi ci des mooy mooy nekk candidat wu maanaam tubaab yi tey la ma ko waxoon lépp tey jii ndikk na parce que Khalifa Sall dafa wor dafa trahir mais nag man Khalifa ak waram moom bettu ma ndax man mii rek damaa datti moom lu ne xeexal ko fu ne datti moom lu ne teewul ba muy wor man la njëkk a war waaw bi mu génnee man la njëkk a war kon yaakaar naa ne bu waree Ousmane Sonko tamit daa jël aw mañanaan rek waaye système bii fi nekk daal ñu fi installé système bi lañu war a changé te it may wax Sénégal yi ne nañ ubbi seen xel yi xippi seen bët yi xool élection yii di ñëw mu neex Macky Sall mu naqari Macky Sall Ousmane Sonko day bokk far force parce que li tax Ousmane Sonko di bokk mooy ñun Sénégalais yi parce que dafa ne man sama bokk ci élection yi du Macky Sall du ay conseil constitutionnel wala yooyu yéen ñi nga xamante ne yéen askan wi ci yéen laaju te askan wi ñëpp nee nañ waaw nee nañ Ousmane Sonko la kon na comme que nee nañ waaw ñun ñooy porté combat boobu ba mu bokk ci élection yi far force ko mu naqari ko kon nañu waajal ñun ñëpp waajal parrainage yi waajal tamit élection yi fexe ba daal keroog ëllëg cinq février ñu ne Macky moom yóbbu nañu xam nga élection yi 24 mais vingt 25 rek ñu ne moom Macky Sall yëkkati nañ ko ba ci kaw dóor ci suuf parce que loolu rek la mérito kon képp ku ànd ak moom teggi leen ko képp ku far ak moom teggi leen ko képp kuy wax ndax Macky Sall bu leen ko xool seen réew ngeen yor te da ngeen cee bëgg changement te changement bi ngeen ci bëgg force régime bi dat fi jóge force tamit système bi tamit dat fi jógee te pour xeex système bi mooy nga xeex Macky kon loolaay woo ci loolaay woo askan wi di ci woo Sénégalais yi di ci woo ñëpp wax dëgg yàlla li nekk ci xol bi làmmiñ bi sax da ko mëntu tudd ndax sama xol dafa jeex takk ndax réew mi ni mu mettee ndax tey ji boo xoolee xale yi xale yi jël gaal gi ndax lan ñàkk yaakaar xale yi nga xamante ne ñi ngi ñi ngi dee ci géej gi seen ay ministre génn duñ ca sax wax ba jaale leen wala da wax ba metti wala mu dem ba seet leen manifestation yi am ay nit gaañoo ay ministre jóg koo xamante ne dafa bokk feneen mu dem jaale ji demul ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoo jaale ji ñoom ñoo gaañule mu mel ne léegi Sénégal kon dafa am ñaari Sénégal Sénégalu Macky Sall ak Sénégalu maanaam askan wi boo boobu boo bokkee askan wi boo gaañulee ci ay manifestation yooyu duñu ñëw daal lay jaale si te pourtant boo bokkee fee de nekk nervi ba bañ rey la ñu sol seeni i koppati sol seen i mbubb dem naan ña ña ngay jaale ji kon ñun ban senegal la ñu nekk ban Sénégal la ñu nekk te loolu nag yéen ko mën a sensé te ni ñu ko mën a sensé rek mooy ñun ñëpp ñu àndandoo booloo nekk benn fexe xeex système bi fi nekk loolu rek kuy dindi amul leneen di wax ne tamit ñu ngi waajal tamit tournée boo xamante ne xam naa sëñ Moustapha dina ci ñëw képp koo xamante ne jàpp nañ la nga nekk Touba wala foo mën a nekk dinañ dem seeti say waajur la nga xamante ne war na fa ci wàllu dund lan ca man sunu képp la kattan sunu alalu bopp dinañ ko def parce que ñoom ñu nekk ci biir metti na parce que am na koo xamante ne Serigne Fallou xam na ne këram moom moo ko doon yor te te ñi ñi jàppale de ci maanaam kii xale Touba moom bi ma waxee ba tey jii may wax ak yéen man maa yor dépasse am parce que dañoo di nekk ci néeg bi mu ñëw ne ma sëñ bi man de sama kër man maa doon xëy dem lijjanti ci dépasse su ma xëyee lijjanti aw 3000 wala 4000 ñëw joxe ñu lekk yenn saa yi sax lañ lañ añewoon démb moom la ñu añewaat dañ ko fanaanal daal di kooku xoolal kooku ñu war koy jàpp daat koy yóbbu bi ñu ko jàppee yóbbu ñu téye ñu fa 2 mois 15 jours nanguñu kenn daat koy gis soxnaam da doon dem ngir ñëw mën a dundal maanaam fameem mu wax ma ko man na ko à partir lépp lu ci warul ne naa ko def ma woote ñu yóbbu fa saako ceeb yóbbu fa diw chaque jour ma leen jox maanaam 5000 francs te ni ni mu amee noonu noonu la amit ñeneen ñoo xamante ne seeni famille tamit maanaam noonu la mel kon Macky Sall na am yërmande ci ndaw ñi na am yërmande ci xale yi na am yërmande ci am réewum parce que réew moo xamante ne ñëpp sonn nañ war ngaa mën a xoolaat fi nga sa tànk war ngaa xoolaat tamit maanaam ni ngay doxalee kon ñun ñi nga xamante ne euh, ñu ngi waaj pour dem seeti mbokk yi seeti famille di waaj tamit tournée fépp fu ñu nit nit ñi woo ci Sénégal dinañ sol suñu tànk dem fa ngir réew mi fépp fu ñu nit war dinañ dem waxtaan ak yow ngir ëllëg système bi mën a changé diaspora bi tamit noonu diaspora bi ñu ngi waaj benn tournée boo xamante ni dina ñëw ci yéen ñëpp ku ci nekk ngeen toog xaar te it xam ne Ousmane Sonko moom lu leen nit mën a wax élection yi moom moom dina ci bokk waaw élection moom du am Sénégal mukk Sonko bokk ci loolu moom c'est impossible amul lu ñuy négocier amul lu ñuy waxtaane kon nag am na loo xamante ne dañuy bàyyi sëñ Moustapha Diouf rek mu eggale ko sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp journalistes yi itam ñu ngi leen sant ndax yéen chaque jour wax dëgg yàlla ngeen bind bind ci man wala ci keneen wala ci keneen mais yéen seen liggéey rek moo leen ñor te it ñi ñenn ñi bokk seen liggéey rek moo leen ñor waaye ñi nga xam ne dañoo farak Macky Sall wax dëgg yàlla moom seen liggéey moom dafa des bu baax a baax waaye nag duñu ñeen ko xoolee ndax yéen ndax am na ñoo xamante ne maanaam seen pilim rek la la ñuy liggéeyee seen pilim mais am na ñoo xamante ne maanaam seen poste la ñuy liggéeyee waaye yéen ñi ma gis fii xam naa ne loolu loolu. maanaam bokk leen ci parce que yéen ñi kenn kuñ ci jox ñaar dërëm amul da ngeen a ñëw ak seeni kamera ñëw ak seeni i micro kon sant nañ leen su ma sante ñëpp te santuma leen rek day des sant naa leen bu baax wax dëgg yàlla sama xol sedd mënu maa tudd tit par nit waaye yéen ñëpp sant naa leen li ci des ñu bàyyi ak sëñ Moustapha ma war ko eggal waaw hmm. waaw waaw xam nga loolu rek day firndeel ne Macky Sall mooy ku kenn bëggul ndax bu demee ba sam réew bëgguñu la dem ba jasporaa bi bëgguñu la war ngaa xoolaat sa bopp bu baax te it diaspora bi dañuy def liggéey bu am solo te diaspora bi mën na maa wax ne maanaam ku fi falu dañ cee joué lu bëree baree bari ndax Macky Sall bi muy falu 2012 diaspora bi dañ cee joué lu bëree baree baree bëri kon bu demee ba diaspora bi wan ko ginnaaw rek war naa war naa xoolaat boppam parce que doo man maa ngi nii kenn du xew wala du ma kenn du ànd kenn ñëpp man la ñu àndal loolu mënta nekk am réew boo ko bëggee yor ci dictateur force rek nii lay demee force nit ñi dañ lay wan ginnaaw wan ginnaaw boo xamante ne maanaam yow sax da nga naan man lii man maanaam nan la nga yaakaar na ñi ñi nga àndal ñoo la yàqal te fekk ne nit ñi ñoo la bëggul parce que dañoo amul tul ci yow yaakaar parce que mooy léegi li ma la wax rek ndaw ñaa ngi jël gaal gi ndaw ñaa ngi dugg ci lu ne te lépp rek maanaam ñàkk yaakaar yaakaar bu tas kon bu ñu amoon yaakaar walla ñu am ci ci moom ne moom liggéey na wala li mu fi def doy na leen su boobaa tamit duñ génn réew mi fii la ñu toog maanaam liggéeyal seenum réew mais tey bu demee ba ba diaspora bi yëg mettit bi bokk ci xeex combat bi di ko combattre xam ngeen ne kon Macky Sall la mu war a def def ko waaw.